ñii dañoo xiif xiif lañ def kuñ rey dañoo xiif kuñ rey de Macky Sall na arrêté Macky Sall na arrêté lii waaye kenn du Adji Sarr Adji Sarr mooy doomi raam lii lépp moo ko waral lii lépp moom doomi xaraam la rek comme ni ko gisee instant bi policier yaa ngi daw parce que mënut a ñoo maîtriser xeer yi nga ne bi moom la moom suuraale ma Marie suuraale ma. indi lii indi alors policier ni ngeen ko gisee ñu ngi daw xeer étudiants yi mooy policier bi bay ma waay yow bay ma. ngeen ko gisee nii rek. yërëm naa ko. tànkam bi sax baaxul benn tànkam. xool leen Dakar ni mel comme daa xiin rek Dakar ndax saxaar su bari li ñaaw na torop nag sëñ bi dafa ñaaw ci ay ñetti nit xaw ma ñeenti nit xaw ma ñetti nit yi ñaaw na waaye ah. <laughs> sama waa baay yi. xool leen sama nijaay yi ñoom ñoo ngi ne taxaw sama nijaay nijaay lañ